salaamaaleykum beneen yoon mu ngi leen di nuyu di leen ziar di dell siwaat ci beneen jotaay di waxtaan ak euh, Serigne Cheikh Omar Diop borom ndombali borom jaaro bi boroom cuuraay lii lu mu di la ziar di la bàyyi mu nuyoog jaam yàlla yi ndax dañoo war a waxtaan tey ci li nga xam ne moo lëmbee àddina bi muy cuuraay lii lu bi mi ngi noonu ngay wane donc ñu bàyyi la nga nuyoog jaamu yàlla yi bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata mustaqima sirata alladina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim wala dalin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yaa himmata shaykhi ihdiنا bihadha al-mahdi wal tahti fi bi maqalati tahti al-arab mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen baal ak di leen baal ak eh, di ñaan yàlla at mi ñu dugg yàlla na nekk atam naataange yàlla na nekk atam xéwal atam mucc atum jàmm na yàlla defal ñu mboolem buntu xéwale mu bil ñu ko te defal ñu tey siir ak tey uh, tawfiix defal ñu najaaxa defal ñu mbooleem suñu càkk jox na suñu mbooleem i càkkuteef nangu ñu suñu mbooleem i ñaan yal na yàlla may ñu dam ci liggéey bépp bu ñu nekk di ci yëngatu yàlla defal ñu jàmm defal ko njaboot gi defal ko mbokki jullit ñi defal ko suñu mbokki dëkkandoo defal ko képp ku ànd ak ñun di leen wax ne tey dañu ñëw na pour waxtaan ak yéen ci xéwal gu màgg gi nga xam ne yàlla ñu ko wërsëgal mu nekk mbir mu kéemaane moo xam ne euh, yéem na jamono lëmbee na jamono àddina bi yëpp nga koy bokk di ko coow muy cuuraay bi nga xam ne mooy cuuraay lii lumu nga xam ne nag képp ku ngeen dégg mu koy wax bu dul bii booba pirate la du dëgg cuuraay lii lu mu benn nit a ko am fii ci àddina bi muy Cheikh Omar Diop te képp koo xam ne nag laal nga cuuraay lii lu mu danaa la porte plainte danaa la denc <laughs> ndax maa ko moom maay borom ndax lépp lu ci war ci wàllu protection pour protéger ko def naa ko <laughs> waaw parce àddina bi léegi pirateur yi dañoo dañoo doy waar ba nga xam ne euh, lépp loo lu la yàlla dénk rek duñ góorgóorlu mm-hmm. duñ xalaat duñu gëstu duñu def dara lu du toog di xaar rek ay nit yoo xam ne boo yëngatoo ci dara ba mu baax dañu copier mm-hmm. nag jaaduwut nit boo koy booy jël alalam da nga ko war a nga laaj ko ci ndigal mm-hmm. kon nag ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax di leen wax ne jotaay baa ngi noonu bisimilah. waaw ñi bàyyi leen nga nga nuyoog jaamu yàlla ki at mu bees mi ñaanal nga jaamu yàlla yi. waaye bëgg naa itam nga nga gën a yokk ñaanal jeunesse bi sëriñ bi jeunesse su Sénégal bi nga xam ne ñu ngi daanoo ko jóg yor seeni diplôme nekk ci réew mi xëyut gontuwul dug yaafuus dug tayal dug mbon dug xaye di bëgg nañ ko waaye dañ ko gisut amaana man nañ ko waaye xamul nu ñu koy defee kon nga wax ak jeunesse boobu mam bàyyi rek ci deux minutes quelques secondes nga ñëw ak loolu ci jeunesse bala ñoo dugg suñu digg biir waxtaan waaw alhamdulilah di leen wax ne bu leen découragé jamais parce que mu ngi ci kanam ay xale lañ xale yooyu noonu nañ góor góorlu bu ñu découragé àddina boo ci nekkee euh, boo bëggee réussir dans la vie bul taamu te bul xeeb bul yàkkamti soo ko defee di nga réussir réussite àddina du dara lu dul éteindre say ay objectif rek li nga tànn na moom moom bëgg boo ko amee rek réussir nga réussite bi gën a am solo nag mooy jubóog yàlla mooy nekk ci jaamu yàlla fexe ba doo mooy yàlla fexe ba doo nekk ci lu naqari yàlla boo ko defee réussite li ci des nag mooy am ay bien ak ay moyens yooyu xel moo koy maye ak liggéey ak ak ak volonté te plan bi ñu tëralal africain yi occidente yi tëral ko ñu bàyyi ko noonu ba tey moom moo indi crise bi nga xam ne moo indi chômage bu métti bi ak li nga xam ne ñu ngi koy def muy création yi ñuy def ci wàllu euh, robotisme bi yooyu nga xam ne li nit ñi waroon a def tey ñoom ñoo utut ñoom di ko def loolu bokk na ci li indi crise bi am ci àddina bi ak li nga xam ne moom moo indi chômage bi léegi ndaw ñi nga xam ne nag ay jeunes intellectuels lañ ñooñu dama leen di conseiller ñu bañ a nekk ay dépendant nañu jël seen propre ay xaw xalaati bopp nañ ciy def ay invention yoo xam ne dana dépendre ci seen ay objectif seen xalaati bopp ñu mën a dé def euh, euh, euh, ci li nga xam ne mm-hmm. mooy départ ci ba as wala ba baa départ départ ci lu tuuti bañ koo bañ koo yàkkamtee mm-hmm. doomu aadama su la yàlla mayee xel may la wér rek may na sa may may na la départ dèjà may na la alal li ci des nag mooy nga gësam sa xel mi pour mën a xam fan ngay teg sa tànk ak lan nga war def man maa ngi ñaanal bépp jeunesse bu nekk ci Sénégal am liggéey ak ñàkk liggéey moo ci yem yal na leen yàlla wot sàmm leen may leen seen càkkutéef hmm. may leen alal may leen xam-xam may leen teraanga ak wér ak mucc loolu laay ñaanal sama jeunesse réew parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ci war a jàpp hmm. xale yi dama leen di conseiller nañ góorgóorlu di nangoo liggéey hmm. gis nga nit sa destin mënoo ko échappé mais su fekkee danga def da nga dem jàngi jàngi mi xam nga ne xel mënu ci réussir da ngay jéem a fexe orienté wu ci li nga xam ne moom nga jàng ngay jël nga transféré ko ci li nga mën a jaar pour mën a réussir mais doo doo doo doo frank laayu rek ci benn mbir rek ne fa ngay dee fa ngay réussir soo réussirul du baax fekk na foofu mën na bañ a nekk sa yoon donc nit ki bu nga réussir nekk na lu yomb luy tax ngay réussir mooy nga fexe euh, bañ a tànn dara na lii ngay def pour pour mën a réussir lépp loo xam ne disponible na pour nga mën a réussir te nekk na loo xam ne lu jaadu la rek lu lu lu neex yàlla la kooku waroo ci am benn kersa wala nga am ci benn ressource mm-hmm. loolu laay xelal ñu bëri nag am nañ ay opportunité pour réussir mais ruus ak kersa ak jàmm ak ak tànn wala ay jomb wala ne man lii laa jàng domaine bi laa jàng domaine boobu rek laay laay suivre loolu bokk na ci lii leen gàllankoor fekk li nga suivre noonu domaine bi nga nekk moom si nga spécialisé wu mën na nekk loo xam ne sa des du sa sa sa réussite nekku ci mm-hmm. donc am na ci kenn koo xam ne tey actuellement nii mu ngi def ay business mu ngi def liggéey mu ngi am xaalis man maa ko dimbali ci loolu ma ne ko yow li jàng nga am ay diplôme mais yow yaa ngi toog rek mais defal dara en attendant diplôme yi di a bu la bu diplôme fekk yaa ngi ci yoon boo toogee di xaar diplôme da ko war a mhm. yaa ngi nii toog di xaar ay diplôme diplôme diplôme mu ne ko loolu la tardel sa xel mi nga jël mhm. sa diplôme yooyu nga am expérience boobu ngay jël nga viré ko ci commerce wala nga viré ko ci ci entrepreneuriat wala nga révider ko ci leneen il faut nga il faut nga orienté ko parce que am nga déjà xam-xam hmm. donc xam-xam soo ko xasee am rek déjà am nga alal hmm. donc pour nga mën a nekk kooku mën a réussir dans la vie hmm. da ngay bañ a nekk ne man kat jàng naa euh, euh, euh, kii laa jàng lu ñu ko waxeete management laa jàng mais mën nga jàng management fekk yow amuloo sens pour def management mais management ko jàng am nga xel am nga intelligence am nga jal mën nga dialoguer mën nga fexe mën nga programmer donc da ngay fexe rek nga créer beneen affaire donc loolu moom laa lay moom moom laay wax mhm. parce que doomu aadama yi nekk nañ nit ñoo xam ne mhm. seen xel ak seen i xam-xam mhm. moom actuellement nii dañ leen dañ koo contrôler loolu moo indi problème mu crise bi ñu am nii yëpp li ko indi mooy ay nit ñoo xam ne seen xal seen xel fexewuñ koo yëngal ci da si selon li nga xam ne moo toll dëppoo ak seen euh, euh, euh, niveau wala moo dëppoo ak seen culture wala moo dëppoo ak seen fi nga xam ne mooy environnement bi nekk di ci dund. parce que doomu aadama war na xàmmee fi mu nekk xam fi mu nekk xam li mu bëgg ba xam est mu ngi réu euh, disponible na. ci fi mu nekk noonu. kon loolu laay koy conseil jeunesse bi. te nag na ngeen fexe ngeen fas seen xol que mille 2020 dafa war a baax parce que yàlla ci boppam dafa wax ne man yàlla maa ci sama njort jàmm bi euh, am naa euh, su ma su ma juuma la dama fàtte aaya ji hmm. Euh, wala hadis ji hadis hadis yonent saa sallam moo ko wax mm. mu ne yàlla dafa wax ne man yàlla maa ngi ci sama njott jàmm mm-hmm. te yàlla yaa yaakaar naa hadis dina ñëw ana xen n zanni xab di bii suma juuma yaakaar naa loolu la mm-hmm. ngeen baal ma tax ko gëj a ko gëj a dafa dafa gëj a ñëw si mm-hmm. la moo ko wax mu ne yàlla mu ne maa ci sama njott jàmm bi bu leen jàkk seen xel mukk ne da ngeen a war a métti wala dafa war a jafe wala di da ngeen di def ci seen xel ne deux mille vingt dafa war a baax dafa war a neex dañoo war a réussir dafa war a am dañoo war a am volonté gën a changer li la échappé woon ci deux mille dix neuf bi nga corriger ko fexe bu mu la dalaat ci deux mille vingt bi li nga doon regret regret yi nga amoon ci deux mille dix neuf nga bañ mu répercuté waat ci deux mille li nga doon def ci temps bi nga doon def nga effort yi nga defoon 2019 ba gis ci résultat bi nga jot am danga koy doubler nga gën a yokk prudent nga gën a prudent gën a yokk sa énergie gën a yokk sa temps pour mën a gën a yokk doubler waat encore gën a doubler euh, effort yi pour mën a am atteindre sa nga mën a atteindre sa objectif donc nit ki daal yàlla jox na ko jumtukaay yépp ci loxoom mu ngi des ci moom mu mën ko euh, soppar nekk ci nu mu ko bëggee wala mu négliger ko mu def négligence ci loolu ba du mën a def li nga xam ne moom la war a def loolu daal laay conscience jeunesse bi mhm. di leen wan ne avenir réew mi seen loxo la nekk mhm. yéenay jël léegi après kon na ngeen fexee préparer seen suba te mhm. préparation suba bi tey lay nekk koo dégg mu naan nekk naa ci nangam 10 ans 20 ans 15 ans dafa teeloon na xam ne fi fi mu nekk tey mu ngi ko doon xaar moo taxoon mu teel a départ ba nga xam ne boo ko laajee mbir mi ñaata nga ci man mu ngi mel ne affaire affaire faj bi ma nekk nii bientôt ma def ci 20 ans xam nga loolu du tey su ma toogee ba tey ma ciy wax nag Samba Ndiaye jógee fële moom it ne tey day xëy rek wax ci li may wax ñun ñaar mënuñu nekk benn parce que man dama ko dund teel a sóor na lii lay nekk parce que ba may am 7 ans ñu dugal ma école française dama wax sama papa ne ko man du ma jàng français daara laay jàng alxuraan laay jàng parce que sama bi ma ñëw ba ci ma dugg fa dama wax sama papa ne ko man ba ma fa demee ba léegi gisuma monsieur bi kenn ñëw di ko wax damaa bëgg nga ñaanal ma kenn ñëw ne ko sama bopp bi dafay métti damaa bëgg nga moccal ma sama bopp bi kon foofu du sama place dama bëgg ñu yóbbu moom ma dem jàngi alxuraan kon teel naa bàyyi xel ne man damay war a nekk sëriñ damay war a faj damay war a ñaanalaate loolu dafa important ci nit ki soo bëggee tekki dans la vie teel a programmer ne man kat nangam lay doon nga fexe noo mun def pour loolu réussir nga def ko waaye su fekkee ne situation taxaw na les bloqué na da koy teg tegagum nga deema nekk ci dara loo xam ne mooy tax les débloqué wu Euh, euh, euh, ba mën a ta ba li nga soxla mën a am ci diggante bi man jàng naa fi métier jàng naa fi métier ba réussir sama métier ah def naa sama def naa service vingt vingt ans mm. liggéey ñu may fay salaire mat xëyee xëy teg ko fële donc nit su feyee su su su su su bëggee réussir dans la vie mm-hmm. da ngay xam ne man kat ah, temps bii nii li ma bëgg def mm-hmm. temps bii nii jotagul wala temps bii nii mayewu ko mm-hmm. xaaral ma def nangam pour ma mën a am départ foofu noonu pour mën a def li nga xam ne moom mooy li ma bëgg def mhm. kon addina bi ñu nekk nii addina la boo xam ne mhm. du pour kenn pour ñëpp la mhm. kenn ku ci nekk fi nga natt sa bopp rek foofu ngay yem loolu moo tax maa ngi conseillé jeunesse Sénégal ne leen bu leen découragé bu leen dépendre ci état jeunesse bu dépendre ci état mooy jeunesse bu tardé jeunesse bu am yaakaar bu tas jeunesse këpp ku yaakaar état rek sa yaakaar tas nan man maa leen koy wax parce que àddina bi dafa changé état mënatul dara ci population yi état mënatul dara ci ci ci situation addina bi su ci mënoon dara def ko bu yàgg état mënu ci dara loolu man maa leen koy wax li ñuy wax yëpp ay théorie la rek ñaa changé nañ ñetti président situation yi ba léegi gisuñ benn yoon mu changé changé nañ fi Abdou juuf ñu ne yaakaar na yow bu ñu indee Abdoulaye Wade changement dana am ñu indi Abdoulaye Wade rien di tout rien changé wul rien na changé ñu indi Macky Sall ñu jëlee jële fi Abdoulaye Wade na Abdoulaye Wade baaxul Abdoulaye Wade lii lii lii ñu yenu sànni na changé ñu indi Macky mu ngi nii ci dernier mandat la nekk rien ne change dana fi jógee tamit dañuy continuer di jàmbar rek kon nañu li ñuy wax mooy nañ jéem a delluwaat suñu bopp suñu xel yi xam ne dara duñu tax a réussir dans la vie lu dul ñu jël suñu bopp yii yëngal ko ci li bëgg yëngalal suñu bopp fexe tekki suñu bopp mm. parce que réew mu ci xaar sa état da ngay tardé Chine xaaruñ seen état Chine dañoo développé seen bopp kenn ku ci nekk lam nekk mu jëm ca nekk ci dara mm. euh, Amérique noonu lañ def Euh, France noonu lañ def ki ñëpp noonu lañ def état nag moo wax moo fa war a nekk pour di def contrôle di tere ak a digale di sàmm ak a atte yooyu loolu pour loolu la mais pour réussir nit ki réussir nit ki nekkul ci état ñenn ñenn boo xoolee si état bi ñu ci nekk di ci yëngatu matuñ 1 pour cent de population sénégalaise bi donc ñooñu ñooy ñoo fi nekk ñooñu rek ñooy tekki ci seen biir ñoom ñooy ñooy ñooy joxe seen ay marché ñoom ñooy gagné seen ay affaire ñoom ñooy am xaalis ñoom ñooy tukki ñoom ñooy noos bu demee ba ñu leen follee ñu fal keneen seen famille ñooñu rek ci lay yem donc il est temps que sénégalais yi conscient ci seen bopp teg ay affaire politique nale sànni ko fële dem doxi seen ay affaire fexe nit ki nga nit ki ki ki nga xam ne bu defee politique dina ci dina ci gagné mu dem defi ko ki nga xam ne dañ koy utiliser pour def politique muy teel a yeewu ci boppam xam ne moom dañ ko def jumtukaay pour di ko liggéeyee mu teel a yeewu ci boppam sànni fi affaire politique bi nale waxi politique bi ñu teg ko nale teel a jéem bopp gis nga ku bëgg a réussir dans la vie dangay ngay wàññi wax te fexe di bëri ay jëf soo bëggee réussir da ngay da ngay wàññi wax di bëri ay jëf jotaay boo xam ne boo fa demee doo fa yokkoo nga bañ faa dem ba jotaay boo xam ne boo fa demee wàññeeku nga fay jëlee nga bañ faa dem hmm? jotaay booy yokkoo nag bu fa tayal nga dem nga defa dem nit day am faay fayda ci boppam doomu aadama am na foo xam ne boo fa eggee kenn waratu laa yee nga say waajur bu ñu lay yaree ba pare dangay fexe nga jugaat nag nga yaraat sa bopp deuxième bi mooy xàmmee li nga xam ne moo la jik ak li lay yokk ak li lay jariñ nga am fayda ci sama bopp bul xool ku la gërëm ak ku la mere nga yemale ñaari yooyu bul toppatoo kenn bul fexe bul lor kenn waaye bul fexe tamit ba sàggan di ñàkk fayda ba ñu lay lor bàyyi ñas suñu sëriñ gis nga amul kenn ci kaw suuf koo xam ne jaxasoo nga ak bàyyi ñas te doo ko seedal am fayda wala nga seedal ko am def ko am pul la waaye li nga ko seedal tamit da nga ko seedal tamit koo xam ne dafa woyofa woyofa woyofa woyof disponible disponible disponible intelligent intelligent intelligent macha allah waaye te loo ciy teg kenn ëpp ko fulla ci kaw suuf donc loolu mooy nit nit da ngay am fayda am fulla am personnalité ci sa bopp doomu aadama warul ñàkk fayda ci dara lu muy nekk waroo ñàkk fayda ci kanam say ay mbokk waroo ñàkk fayda sa kanam say ay nawle waroo ñàkk fayda ci kanam say ay mbokku taalibe waroo ñàkk fayda ci sa kanamu jabar waroo ñàkk fayda ci sa kanamu ay doom waroo ñàkk fayda ci kanam sa population bi nga nekk nit day am fayda am fayda nag ak naqari deret ak tàng loolu jotewuñ dara nit dafay am fayda am nit ki mën naa euh, lewet mën naa disponible mën naa wàccee boppam te mu am fulla mu am fayda am fayda nag mooy lan mooy xam xàmmee li nga xam ne boo ko defee mu yokk la nga def ko li nga xam ne boo ko defee mu wàññi la nga nga bañ koo def loolu mooy am fayda kon nit ñi nañ faxe jeunesse bi nañ fexe ñu am fayda bu leen nangu ku leen di yóbbu ci ay mani ay ay manifestation ngeen di ñu leen di utiliser di leen di grève loo wala ñu leen di yàqloo ay kaar wala ñu leen di taalloo dëkk bi loolu yëpp day indiwaat crise day tax mu gën a metti rek parce que ñun ñoom réew mi nit ñi dañoo kon nañ conscient muus dem liggéeyi dem defi dara képp ku leen di wax loo xam ne da leen di tardeel ngeen teg ko fa ni tegi dem doxu seen soxla yi am ful la am fayda gis nga 2020 bi tey mooy premier jour ci 2020 amaguñu 24 heures yu mat ci at mi nañ teel a bàyyi xel suñ bopp ci at mi 12 mois la 12 mois nag du caaxaan nañ teel a teg teg suñ plan plan de carrière teel teg suñu ay programme xool li ñuy xam ne mille 2020 bi 12 mois yi lan lañ ci war a def pour mën ci gagner suñu avenir pour mën ci gagner suñu ay avenir njaboot. te ñu supprimer ñu xool ci 2019 bi lan ak lan lañ ci def loo xam ne daf ñoo dañ koo dañ koo regretter ñu fexe ba buñ ko def bu dee mooy yàlla buñ defoon la nañ jaayanteeg suñ bakkan ba buñ ko dolliwaat su dee sàggante guñ defoon la bu ñu waroon a jaamu yàlla defuñu ko nañ fexe ba bu ñu dal su dee dañoo sàggane woon suñ ay liggéeyukaay wala suñ ay liggéey ñu fexe gën a yokkaat suñ effort téyewaat suñ liggéey téyewaat suñ kii loolu laay fàttali jeunesse bi nañ xam ne àddina bii ñu nekk addina la boo xam ne chaque jour nga gis ñu tàgge la koo xam ne yéen ñaar yéen doon ànd wala ngeen nekkoon ay xarit wala nga xamoon ko kon bés à bés la addina bi chaque jour mën naa koy jeex kon nañ teel a bàyyi suñu xel suñu bopp fexe góorgóorlu ci li nga xam ne mooy suñu avenir ak suñu avenir réew bu ñu nangu kenn ku ñu gën a bëgg suñu réew bu ñu nangu kenn ku ñu gën a bëgg suñu réew bu ñu ko nangu bu ñu nangu mukk président bi gën ñu koo bëgg citoyen la comme ñun rek kenn la ci suñ biir barki démb la nekkoon suñu biir ñu dem ba yàgg ñu tànn ko ne ko kaay jiiteelu ñu xool ba xam loo mën ginnaaw suba dafay ñëwaat dellu ci siwaat suñu biir kon du ci lenn moomu ko dëkk bi moom président bi moomu ko ñi ci keneen ki koy uuti tamit moomu ko dafay nekkaat bu demee ba yàgg mu tegaat ko fi de keneen nekkaat bi Abdoulaye Wade da ngi ni ab mag président Macky Sall ki ngi ni euh, euh, euh, Abdou Diouf a ni ana Senghor deewut ana dee na moom bañ gas ko suul mu jeex moom moom moom sax far na moom ci boppam jeex te moom Senghor bu mu fi nekkee kenn musutoon sëriñ si la fi nekkaloon foogoon nañ ne sengoor du fi jóge Abdou Diouf ñoo ne uutu ko foogoon nañ ne Abdou Diouf nat ñaata at la fi dem Senghor ñaata at la fi def ñoom ñaar boo leen boole seen ati 40 ans la demoon nañ ba ñun xale yi bañ màgg dañoo màgg dañoo dem ñun suñu jeunesse dañ koo mag ci Abdou Diouf dañoo a xam ne euh, euh, euh, soo ñu laajoon tey ministre Abdou Diouf yi mën nañ ko tëri comme kuy tëri Fatiha ndax yàgg guñ fi yàgg ci xeli nit ñi anamu tey ñoom ñëpp raxas nañ leen sànni Macky Sall Abdoulaye Wade bi ñu fi ñëwee nu mu def di nekk ci xeli nit ñi dem dem dem dem ba nga xam ne yaakaar nañ ne addina bi dana sotti ci Macky Sall ci Abdoulaye Wade la sotti ah l'an bi fi l'an 2000 li jot ak te bu yoon laal 2000 jot ak léegi barki démb la Abdoulaye Wade bi mu fi ñëwee luñ foogoon addina bi euh, euh, euh, Sénégal dana changé dina ne alamu ana Abdoulaye Wade paqueté wuñ ko sànni fële dem mu dem mu ngi fii ci biir dëkk bi nekkoon citoyen avant muy nekk président delluwaat na nekkaat citoyen Macky Sall bi tamit day citoyen la woon avant muy nekk président citoyen la ba tey waaye dina dellusiwaat ñëwaat suñu biir nekkaat rang nekkaat ci ci rang bi kon nañ conscience suñ bopp yeewu fexe xam ne ñun suñ bopp suñ jeunesse bii suñ bopp ñun ñooy defal suñ bopp liñ bëgg addina bi kenn du réussir dans la vie lu dul yow yaay réussir la sa bopp yàlla jox na la jumtukaay yépp jox na la xel jox na la réew jox la jaw jox la suuf jox la ndox ak naan di la mel di la may ngay reposer di nelaw ak yeewu wàccoon naag yow li ci des mooy di ñaan yàlla mucc ak góor góorgóorlu liggéey pour mën a tekki sa sa àddina àddina bi foofu lañ toll tey bu leen nangu mukk ku leen di tardel soo mënee jaay Dakar demal jaay ko soo mënee jaay bisaab demal jaayi ko soo mënee jëm jaayi nangam soo mënee tamit toog def concentration te xalaat ci sa bopp loo mën a créer loo xam ne dafay nekk ay invention parce que réew mi dafa manqué ay nit yu def ay invention parce que léegi ni doo ko dégg doo dégg mukk di diw yi créer lampe buy tàkk diw yi créer avion buy naaw diw yi créer euh, dàll buy tëb kenn loolu amatuñ ko parce que du tax jeunesse bi yëpp dañ leen a inclure dañ leen a impliqué ci côté politique bi xel yi nekkatuñu nit ñi mënatuñu concentré wu perturbé na perturbé nañu sëriñ daara yi perturbé nañu politique politiciens yi perturbé nañu élèves yi xale yi ñu ngi leen di kar di leen jël di leen jaay di leen euh, yóbbu di leen jaay yi di leen kii perturbation boobu am suñu psychologie bi loolu lañu war a fexe ñu delloosiwaat nit ñi recadré waat leen ñu delloosiwaat revenir sur terre ñu wàccaat ñu mën a xam ne actuellement ne réew mi dafa toll ci ñuy ay nit yu ay homme de valeur dañ koo manqué ñu xam ay nit ñoo xam ne dañoo dañuy am xel di xalaat di xalaat-xalaat boo xam ne dafay jëriñ réew mi parce que réew mi nag nañ nañ bàyyi xel suñu bopp ci leen de fii ñu jëm ni depuis d'ici 2022 gii dinañ gis beneen Sénégal bu bees nañ ko teel a préparé teel ko waaja parce que li ñu fi gis ci wàllu ressources humaines ressources naturelles lii bés bu déclenché muy gaz beeg pétrole bii sénégalais bu fi sàggat étranger dinañ ñëw euh, euh, lekk lekk li nga am nga dem toogi na kon xale yi nga xam ne ñu ngi jàng tey jàng ci domaine boobu nañ gën a gën yokk seen effort yi gën a gëm ne réew mi ñoo ko war a sàmm nañu gën suñ bopp daara yi nañ gëm seen bopp euh, euh, euh, commerçant yi nañ gëm seen bopp li nga xam ne mooy transport bi nañ gëm seen bopp wàllu sécurité bi nañ gëm seen bopp police bi nañ gëm seen bopp yi nañ gëm seen bopp douanier yi nañ gëm seen bopp buñ fi nekkal benn chef kenn ku ci nekk na nga nekk ngir sa bopp nga fexe xam ne réew mi chef bi bu mu la ko gën a bëgg directeur bi bu mu la ko gën a bëgg président bi bu la ko gën a bëgg nga fexee def sàmm réew mi sàmm goo xam ne dana topp dana nekk loo xam ne ëllëg say doom bu ñëwee danañ fekk bu nekk dans les bonnes conditions nga xam ne danañ mën a dund ci jàmm danañ mën a lekk ci jàmm ñu mën a sac ñu sacrifié wu ñun jeunesse bii fexe jeunesse bii ñëw demi ñu fekk ñu fekk ñu ñoom ñu ñëw fekk ñu liggéeyal leen loo xam ne buñ ñëwee ñoom danañ nekk jàmm tant que amuñu idéologie boobu Sénégal du dem ci kanam kenn ku si nekk nag booy xalaat sa bopp rek du sotti ñi fi njëkk woon seen bopp rek lañ doon xalaat ñi fi jotoon a xalaat pour seen avenir wu ëllëg ak njabootu ëllëg ñooñu rek ngay dem fekk ñuy sujjóotal seen ay sët ñu fekk li ñuy sujjóot sujjóotal seen ay kii seen seen ay doom parce que sóoroon nañ doomi jàmbur yi uufoon nañ doomi jàmbur yi uufoon seen ay doom loolu moo waral tey seen ay doom fu ñu jaar jàmm parce que yàlla dafa maanu loolu nag nañ ko teel a bàyyi xel réew mi réew la moo xam ne réew mu am valeur la parce que foo dëkk ci àddina bi sénégalais bu nekk bu tekki bu nekk foofu bu nekk nekk fa tekki fa ñu considéré ko manga fa addina bi ba addina bi daj secteur boo mën a dem ci kaw suuf am na sénégalais boo fa nekk buñ considéré kon sénégalais yi am na niveau mais lu waral sénégal di cooxee ba tey parce que euh, euh, euh, lu gars yi di wax naan bu fukki di fukki di fukki di gas fukki di suul nu fay pax di amee bu fukki gas sax kenn di suul sax pax du am waxatuma laa nag foo xamee ne fukkay suul kenn ay gas kon nañ bàyyiwaat xel suñ bopp lii la lay wax ne naa ko conseiller sénégalais yi ci 2020 bi yàlla na nekk atam naataange ci ñun yàlla na nekk atam jàmm ci ñun yàlla na nekk atam mucc ci ñun yàlla nekk atam sutura ci ñun yàlla na nekk atam xéwal ci ñun Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla bu fi guerre mës a am yàlla bu fi xiif mës a am yàlla bu fi mbas mës a am yàlla bu fi dara mës a ñàkk léegi yàlla na yàlla na def Sénégal naataange gii ñuy séentu yàlla nañ bokk ci ñu koy muurloo yàlla nañu yàlla may xaalis nag xaalis bu baree baree baree bare mm-hmm. yàlla may ñu ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards milliards yàlla may ay milliards yi ba nga xam ne dañuy am suñ kër di ci def ay paqueti xaalis mm-hmm. paqueti xaalis nga xam ne da ngay ubbi sa armoire ni gis ay rangé xaalis noonu mm-hmm. noonu yàlla nañu yàlla may xaalis bañ koy am bu may nekk ginnaaw raay di nekk ak taalibe yi di leen ñaan ne naan yàlla nañu yàlla may ay 4 x ay ma wax yàlla nañu yàlla may 4 x yàlla am na ñoo xam ne buñ ko ñaanee dana leen déglu am na ñoo xam ne bu ñaanee yàlla mu déglu leen de moo tax man damay ñaan yàlla yàlla naa bokk ci nga xam ne bu ñaanee yàlla mu déglu bu ñaanee yàlla yàlla déglu yàlla déglu leen donc maa ngi ñaanal ñëpp ñu ñu ñu bokk ci loolu waaye li may wax daal mooy ñaan ji ku ne amiin yàlla nan ca bokk yàlla na yàlla may sénégalais yi xéewal ak taraag ak sutura ñu ngi kontaan bu baax nag di leen jox loxo yéen ñëpp di leen wax na ngeen baal ma àq ma it baal naa leen àq lu tax deux mille dix neuf bii xëy na mën naa wax naa ci kenn lu ko naqari wala ma wala ma jëf lu ko naqari maa ngi koy jéggalu fu mu mën a nekk ci kaw suuf waaye maa ngi leen di jéggal tamit di leen wax ne yàlla ñu yàlla boole jéggal di ñaan yàlla mu may ñu atam naataange atam xéewal parce que Sénégal gii nag ak réew la moo xam ne réew mu am njariñ la benn waaye mos naa ko oo bu nekk bitim réew ma ne ko aljana sur terre mooy Sénégal mu ne ma sëriñ bi li ko waxee sax xamee ko noonu ma ne am na dem ngénte am na takk jabar ñu ñu lay fekk na am na lu ne am na kaay reer am na damaa bëgg a fanaan damaa bëgg tuur ndox am na damaa bëgg lekk am na damaa doo ma dimbale ma ma am lu ma añee am na fi amul lu fi manqué donc kon yàlla defal nañ tawfeex boobu kon nañ sàmm suñu réew mi ñu yaatal xol yi chauffeur yi nekk ci tali bi tamit nañ yaatal seen xol yi ci seen diggante ak morom chauffeur ñu bañ a xatlante hmm? ñu nekk ci njaay mi ñu bañ a ñu bañ a soxaraante ñu nekk ci uh, paj mi bañ a soxorante ñu nekk ci politique bi bañ a soxorante xasante beeg ŋàññante beeg yépp ñu wàññi te fexe xam ne benn objectif lañ am objectif bi leneen la mooy Sénégal Sénégal jëm ci kanam fexe set Sénégal yi gis nga problème bi ñu njëkk am majeur mooy set ak poussière Sénégal Sénégal fexe tànk góorgóorlu wuñ ba lëkkaloo ñun ñëpp jaayante na poussière dootu amata ci réew mi de defaguñ dara tànk poussière jógewul jógewul ci Sénégal ngay sol yére une semaine. tant que loolu amul fi Sénégal développement bi dana yéex parce que Sénégal fii lu koy yàq mooy poussière bi oto boo ko jëndee Europe indi ko ku peinture bi dafay rafet rafet macha allah su defee deux semaines ci réew mi bi daal di yàqu lu koy waral parce que poussière soo indee fii yére yére bi dafay rafet soo ko fi ñaari yoon mu yàqu soo solee verre boo amee mu yàqu dàll soo ko amee mu yàqu lu ko waral parce que dafa poussière dëkk bi amul assainissement. dëkk bi amul pavage dëkk bi amul salubrité dëkk bi amul sécurité dëkk bi amul euh, euh, euh, rusante rusante bi fi nekkoon a kas ñëw sa far na jeex léegi loolu état du rôlu état rôlu citoyen yi la nañ fexe xam ne mbalit yi ñuy sànni mbalit yooyu citoyen yooyu dem ca mbalit ma waa état xanaa moom dafa nekk yàlla kon fan lay def na ni état du yàlla défendre ma état ban état ma benn njariñ man sama yoon ci état faralu ma Macky Sall tey du suba man musuma faral état man musuma contre état musuma faral man sama bopp laa faral sama bopp laay liggéeyal sama bopp laa gëm parce que moo may tax a réussir te gëw ma benn politicien ci kaw suuf fii waaw su euh, def yëfu citoyen jotee nag danaa dem tet ki sama kal ma votel ko jàpp sama njaamu dem sama yoon waaw loolu laay leen di wax ngeen xam ko parce que musuma gis ci ñi ma xam ku ci mës a dem tekkee ci ne politique ko tax a tekki moo tax xaaruma ko su su ma gisee nag sama xel nag loo xam ne sama xam-xam may na ma ma participer ci ci luy développer réew mi am na ay relation yoo xam ne ay ñun ñoo xam ne ay politiciens des fois ñu am ay idées ñëw ba ci man laaj ma ay xalaat ma xelal leen ñu dem parce que am naa droit def ko parce que euh, citoyen la am naa niveau ci xam-xam ak ci expérience ci réew mi loo xam ne mën naa partager ak euh, euh, nit yi ci ci réew mi mais man xam naa yoon wi nga xam ne fa laa war a aw pour réussir manqué manqué yoon wo di di au Sénégal yëpp ñu xalaatee noonu mbalit mi nit ñi ñooy ba dajale dajale mbalit damaa bëgg ñu conscient ñu xool bu wax li may wax nit ñi ñooy dajale mbalit ci seen biir néeg yi génnee ko ci ëtt bi ci seen ëtt kër daj def ko ci mbuus ba pare génnee ko seen kër ñëw ba ci bopp koñ bi sànni ko ba pare naan état bi état bi état bi mais loolu mooy lan yëfi dof yooyu mooy lan yow yaa jël mbalit mi sa biir ne génnee ko sa ëtt génne ko ci mbedd mi mais yow yaa talox tilimal réew mi yow yaa salte réew mi yow yaa salte yow mi jël mbalit mi yóbbu ko ca mbalit ma sànni ko fa te sànni woo ko ci biir poubelle bi yow yaa yow yaa yow yaa gàkkal état yaa gàcceel état yaa gàcceel réew mi yaa ko salteel yow yaa war a defar Sénégal yow yaa yow mi jël musuwaar dugg ci sa biir oto ñandu ba mu baax nga sànni nga wàccee sa vitre oto nga sànni ko ci suuf yow yaa salteel réew mi du état état du yoonam newu ci loolu euh, euh, euh, mairie bi yoonam newu ci loolu yow la yaa patakal nañu waxante dëgg nit ñi nag état bi nag su fekkee na nag yaa ngi fay impôt comme ku mel ni man damay fay impôt sama kër dama koy fayal mbalit waaye oto mbalit mosu te traversé fii noonu may fayal sama bopp saret pour mu dem sotti ma sama mbalit loolu moom mën nañ koo xasee état parce que ñu ngi dagg si xaalis impo ci mbalit mi war nañ ñoo jox oto boo xam ne moom moo ñuy tuurali mbalit loolu suñ koy wax mën nañ koo nangu côté boobu waaye warul tax na ñu jël mbalit mi nag sànni ko ci mbedd mi war nañoo jëlal Sénégal war nañoo jëlal ah li nga xam ne droit la def ko ba pare nga soog a laaj sa ay devoir sa devoir na nga ko def ba pare soog laaj sa ay droit léegi nag su fekkee ne état bi participer wu xëy na xaalis bi mu la waroon a jox ci mbalit mi am na élève bi war a jàngi euh, réew mi amul doole mu jël xaalis ba dem defi ko ca élève bi ba war a jàngi yow nga comprendre nga jël saret saret saret bi nga xam ne amul liggéey tam ngi dawal saretam te mbalit lay am ci lay foraatoo nga jël sa mbalit fay ko fukki dina wala cinquante franc jox ko ko mu dem tuuri la ma dimbale état bi dimbale nga sa borom saret bi dimbale nga sa bopp ci euh, environnement bi nga nekk ba mbari ma mënu faa nekk donc il faut ñu am xalaat boobu noonu état bi nag su fekkee ne ñoom euh, matadi nañ wala wayee di nañ sàmmuñ alal réew mi ba luñ jëlee ci kees gi dama ko ci seen ay compte ñoom la engagé ñoo xam ñun ñun nañ def lu ñu war rek ñoom ba keroog ñu yàlla wërsëgale koo xam ne dana mel ni ñun ci defar réew mi ak toppatoo ko kon loolu foofu lañ la ñuy xaar man foofu lay xaar sénégalais yi defal li la war ba pare ki nga xam ne mu ngi ci sa wet xëy na sa jikko sax mën na koo changé mën ngaa dema dema dem ba yàgg mu am mu am kees sax na ah man ne wax dëgg yàlla maa ngi sàcc xaalisu kees gi comme barki dem maa ngi seetaan ci benn vidéo ci ci ci internet bi benn waay boo xam ne dafa volonté wu ne di di di wax ba gaa yi di def seen euh, euh, seen seen kii euh, inventaire gars yi directeur bi commencé labaj affaire bëgguma woon bëgguma wax kii bi labaj affaire waaye dafa taxaw wax na lépp luñ doon dox maa ko dox xaalis bi ñu war a dépense yëpp maa ko dépensé li ngeen dép li ngeen déclaré moom ngeen dépensé du dëgg ay fen la du dëgg man li ma dépensé temps la yéen li ngeen déclaré temps la man maa ngi dépensé ay 500000 xaw ma ay 15 millions yéen ngeen dem facturé 60 millions loolu ay fen la du dëgg yéen a ngi wax ne kees gi amul xaalis kees gi am na xaalis yéen a ko jël séddoo ko mais kooku kooku loolu mooy honnêteté loolu mooy nit foofu la foofu la ñu xaar Sénégal sénégalais yi nag il faut ñu dimbale population bi il faut ñu yërëm leen yërmaande il faut mu am état bi tamit il faut mu yërëm population bi population bi il faut tamit mu yërëm état bi il faut ñu xam ne état bi muy ñun ñun ñooy état bi donc bu ñu xëccoo bu ñu werante bu ñu kii Macky Sall dafay jeexal ci jàmm ak la su euh, su jeexal lañu tànn keneen teg fi waaye buñ toog di xaar kenn ku ñuy defaral suñu avenir du état du kenn bu leen xaar kenn dem leen ngeen liggéey sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb nga ngénte yee ciit yi ngay gis ne bëgg lu yomb doo ko tax ñu koy ñu ciy forcé nit ñi war nañ ko fay supprimer mu jeex ñu fexe def suñu bopp yi liggéey fexe liggéey pour am dara nit ki soo bëggee tekki da ngay nangoo liggéey nangoo liggéey nag moom mooy tax nga réussir dans la fo koo gis mu réussir mu réussir bul foog ne dafa gént de ñi am na ñaan gaa waaye nag dafay nangoo liggéey pour mën a réussir amul kenn ku leen ci tane nañ liggéey nañ nangoo set nañ toppatoo suñ kër yi nañ toppatoo suñ buntu kër nañ toppatoo mbedd mi nañ toppatoo li nga xam ne mooy suñu environnement bi nekk loolu laa laa wax ne nañ ko fàttaliku wante ci ci li nga xam ne mooy année deux mille vingt bii nañ fexe ngir yàlla ak yonent bi mbalit mi wàññeeku ci biir kër yi mbalit mi wàññeeku ci buntu kër yi nañ fexe ngir yàlla ku nekk toppatoo buntu këram ku nekk ba toppatoo buntu këram surface bi nga xam ne fële sa kër nekk ak ak devanture bi soo ko toppatooyee rek toppatoo nga Sénégal yëpp oto bi nga nekk di ko dawal mbalit mi ci nekk boo naanee sa boisson maa ngi gis benn waaye benn borom borom borom borom taxi yi naan café Touba euh, kaas bi bi ko naanee pare rek da ko yoor rek sànni ko ma accéléré sama oto ba ma ne ko lii dama loolu la am de pare na ca kaas kaasu café Touba boo ko naanee xottu kaas bi noonu kawsu la boo bu ko sànni def ko ci sa bi ba àgg ci mbalit bi nga nga nga soog ko sànni loolu moo jaadu soo naanee ndox mbuus bi bu ko sànni téye ko ba am ci àgg ci poubelle ba nga sànni ko fa ay nit lañ duñ ay mara loolu lañ war a bàyyi xel suñ bopp yi waaw di leen fàttali nag cuuraay bi nga xam ne mooy cuuraayu lii lu mu bi moom moo taxoon ni toog jotaay bi mhm. moo ñu tax a toog ci jotaay waaye nag comme at at mu bees la ñuy ñuy ñuy wax ne euh, dañuy ñaanlante ak a dénkante moo tax ñu dénkaane loolu pour wax nit ñi ne leen ay nit lañ war nañoo jëflante war nañoo nekk war nañoo joxante ay loxo war nañu fàttaliwante ah ndax fàttali dafay jëriñ ki nga xam ne gëm na yàlla loolu lañu yàlla wax kon nag góor góorgóorlu bu baax cuuraay bii mooy cuuraay lii lumu bi mooy pour liy dindi liggéey ci nit luy dindi cat la luy dindi rab la luy dindi gàllankoor doomu aadama la wala luy wala bu fekkee sa yaram dafa am liggéey wala nga tëju wala nga doon am ba nga am am ba dagg taxaw wala nga doon am dara yaakaar yi tas di la sonal wala nga xam nekk koo xam ne rab daf la sonal nga xam ne mënoo am jëkkër wala mënoo am doom wala mënoo am jàmm sa xol du neex wala nga nekk sa jëkkër du ngeen am jàmm yooyu noonu cuuraay bi daf ci aay daf koy dindi ba mu set wecc wecc wecc efficacité cuuraay bi nag jéggi na dayo nit mënu koo mënu koo misaal cuuraay bi baax na baaxaay boo xam ne nit mënta misaal baaxaayu cuuraay bi nit ñi loolu man man awma ci sikk sàkka ku kum neex mën ngaa jënd essai li ma ci wax noonu lu ko ci rawan ci ndax juróom ñaar fukki xeetu mbir la cuuraay bi di dindi muy chef ak muy apprenti ak muy sëriñ ak muy borom xam-xam ak muy politicien ak muy borom alal ak kum ci mënti dool laa la wax ne cuuraay bi boo ko suurooyee da nga li ma ci wax waaw ndax am na ñoo xam ne ci àddina bi fu nekk lañ may oowee ci àddina bi dama gërëm ci cuuraay bii baax na efficace na gaaw na tamit du lenn nag amul sangu amul diwu amul raay teg ci ànd bi rek suur soot tiim ko kese la bu dee ay rab dañoo nekk sa yaram wala ñu liggéey la wala ñu def loolu bon sa yaram sa biir bi day daw day daw sa biir moom day daw sa biir raxas li nekk ci biir bi mu set cuuraay laa la wax de su fekkee da am insomnie doo nelaw boo koy suuroo da ngay nelaw comme ku naan drogue noonu noonu ngay mel su dee da nga nekk koo xam ne sa affaire dafa doon dox wala sa place di dox moom da nga koy su dee nit ñi commerçant nga commerçant bi commerce bi doon dox ba yàgg client yi mel ni lu la bàyyi ah koy suur jël rek suur ko ci place bi suur si sa loxo yi suur sa tànk yi suuru ci yow it boo ko defee rek nga gis activité bi commencé waat di dekkiwaat donc cuuraay la boo xam ne cuuraay bi efficace la cuuraay bu baax la cuuraay la boo xam ne dafay dimbali nit ci wàllu alal ak ci wàllu wërsëg su fekkee da ngay yëngatu doon eh, sa alal di yàqu da koy suuroo mu dana ko dindi su fekkee ne nga nekk koo xam ne sa yaram diis soo ko suuroo dana ko dindi su fekkee da nga nekk koo xam ne sa loo yor mu dem boo ko suuree sa loxo yi da koy dindi dafa baax ci wàllu euh, euh, xol buy tàng xol bu naqari wala nga nga am doo mën a nekk nekk normal wala nga am rab rab rab bu la sonal boo ko suuree da koy dindi su fekkee da nga nekk koo xam ne nag da ngay lijjanti looy lijjanti mu të comme ñii lijjanti këyit wala ñu bëgg a tukki mu të wala nga xam ne loo laal rek nga gis gàllankoor daal di taxaw loolu kii cuuraay bi daf koy dindi kon ñu ngi leen koy présenté mooy cuuraay lii lumu di disponible na ci boutique bio naturel yi nekk ci dëkk bi boutique bio naturel Cheikh Omar Diop boo dem rek cuuraay bi am na fa waaw am nañ benn boutique bu ci wetu église bi am nañ numéro téléphone boutique bi boo nekk 78 239 50 50 mooy bu nekk Pikine ci wetu église buntu bi su dee Rufisque am nañ fa boutique bu nekk ci wetu daral bi ci centre commercial bu bees bi nekk foofu noonu am nañ ko fa numéro téléphone bi mu ngi nekk 78 535 52 52 moom mooy numéro téléphone bi nekk Pikine bi nekk euh, Rufisque bu dee parcelle la en face bi des doore cité Fadia am nañ fa boutique euh, mu ngi nekk foofu boutique bi mu ngi nekk boutique numéro bi mu ngi nekk 78 535 58 58 soo demee Rufisque am na ci boutique kii fële ñaari tali ci wetu SDE ñaari tali bi boo demee foofu boutique bi naturel baa ngi foofu soo fa mën nañu jaay cuuraay bi 60 numéro téléphone bi 78 la 405 euh, 95 95 am nañ boutique mbuur Mbour boo fa demee am nañ fa boutique euh, mu ngi nekk ci wetu rond point bi nekk ci euh, euh, station Shell bi nekk ci booy dem Grand Mbour ci rajo Dunia bi noonu rond point boobu rond point ACEP bi boo demee foofu rek mooy rajo Dunia bi fi mu nekk rond point balaa nga fa yegg da nga gis boutique bi nag à côté bi bu incha allah numéro téléphone bi mu ngi nekk 78 259 71 71 mooy numéro téléphone Mbour bi. lépp numéro yooyu yëpp nag su ngeen ci ootee jotu leen rek mën ngeen maa oo ci numéro 78 200 162 64 64 78 162 64 64 mooy numéro Cheikh Omar man mii wax ak yéen nag laa wax sama numéro téléphone direct bi laa wax mooy 78 162 64 64 ku ci ootee di ma jot soo ma jotee loo ma laaj ci lii ma wax ci wàllu cuuraay bi naa la ko gën a leeralal ma wax bi ci wàllu ma joxe loo ci laaj la ootee laaj yi naa la ci gën a leeralal bu mu gën a leer ndax na ay kilifa yoo xam ne yu ñëw ci ah dama leen di dimbale ci côté li nga xam ne mooy entrepreneuriat ak ci wàllu management ak ci wàllu yooyu dama leen ci dama leen ci conseil parce que expérience bi ñu am ci wàllu àddina ak li ñu doota dund moo ñu ko may àddina àddina dañuy war a def comme système américain yi nit ku nekk loo mën nañ la ca laaj nga wax ca la nga xam ne moom nga xam waaw ngeen di fexe nag di góorgóor di saraxe di saraxe da leen saraxe gis nga sarax day dindi gis nga sarax day dindi gàllankoor gis nga nag man maa ngi leen digal képp koo xam ne dig nañ la xaalis nga bëgg cee jot da ngay sarax juróom-benni sondeel gis nga juróom-benni sondeel moom boo koy saraxe ci xaalis buñ la dig moom xaalis bu kenn mënut a fexe ba doo jot yaakaar yi tas su ko soo ko amee del jël kii euh, del jël euh, nu mu tuddati euh, tàndarma tàndarma ngay jël nga saraxe ko loolu maa leen ko may ci 2019 bi tàndarma ngay jël nga saraxe ko pour yaakaar yi tas suba teel nga koy saraxe dangay dem ci jàkka ja nga set mag mu yaa nga jox ko mais da ngay bàyyi nag bañ julli ba suba da ngay jullee ak ñoom nga gaaw génn bàyyi ba mag ñuy génn nga daje kenn jox ko ko yow nga dugg moom muy génn nga éene ci yàlla nit la gàllankoor yi nga xam ne moo nekk ci ci yow ba yaakaar yi tas di la dal loolu day dindi yaakaar yi tas te tamit saraxe day dindi gàllankoor day dindi bakkaar sarax dafa baax bari la ñoo xam ne seen alal yàqu na dara taxut mu yàqu mooy ñàkkaa saraxe négligé ci wàllu sarax sarax da leen ko fonk sarax day guddal fan sarax day dindi gàllankoor sarax day dindi sarax day dindi yaakaar yu tas sarax day maye alal sarax day maye mucc sarax day maye wér-gi-yaram sarax day maye xaalis gis nga am na ñoo xam ne tey benn doomu guru bu weex benn doomu guru kese moo leen tere tekki ci seen àddina parce que duñ saraxe sarax dafa am solo da leen saraxe ñi am alal da leen génnee asaka asaka day sàmm alal day sàmm borom alal ñi leen génnee asaka sarax da leen saraxe da leen ñaan tey def istighfar di ñaan yàlla nit bu mu tayal mukk ci ñaan yàlla loo soxla ñaan ko yàlla moo ko am moo koy maye dee ko ñaan soo ci mënut dara na nga seet ku la supérieur ci côté ñaan nga dem ci moom mu dimbale la ci ñaan loolu moo tax ñu naan maa ngi dem ci ñaankat yi loolu rekk la donc nañ góorgóorlu ci liggéey nañ góorgóorlu ci ñaan nañ góorgóorlu ci saraxe nañ góorgóorlu ci ñaan lu lii laay wax nit ñi nag àddina bii doon na àddina boo xam ne àddina bu jafe la parce que foo ne baax na am na junni yu taxaw na baaxul foo ne bon na am na ñu ñu taxaw na baax na donc li li gën nag mooy nga tànn yow li la jig ak li la arrangé nga lekk ca bañ a déglu ñi ci li li nga ñi nga xam ne ñoo ñoo ci nekk yàlla mi ñu bind nga xam ne mooy suñu borom sax am nañu taxaw wax ne yàlla moom ci boppam amut kon leneen luñ mën luñ ci mënta teg loolu waxatuñ ko kon nañ gëm ne nit ñi kenn ku ci nekk am na ku nekk la nga gëm nañ la ca bax ki nga xam ne moom li nga nekk nekku ca wàcc ko mu nekk ci liberté boppam parce que foofu la àddina bi tollu soo ko mënee waxtaanal nag li wajhi llaahil karim conseil euh, conseiller ko fàttali ko ba mu d'accord mu def ko mais bul bu kenn forcé kenn ci lenn loolu sa say xanaa say doom wala ñu la engagé ñi nga xam ne ñoom ëllëg ñoom lay yàllay laaj sa càmm ci ñoom ndax yonent saa la wax nañu ne kenn ku ci nekk ñun sàmm la yàlla dana ko laaj ni ko dénk nan la ko sàmmee woon kon la nga xam ne moom la yow la engagé nga sàmm ko sàmm bu rafet boo ëllëgee bu ñu la laale laajee noo ko sàmmee woon nga bañ a am kersa ci di ko wax ne góorgóorlu nag ci saraxe man damay insisté waat ci wàllu saraxe sénégalais yi dañuy négliger jàmbaar lañ nag ci côté sarax mais am na ñoo xam ne dañuy négliger sarax di leen saraxe di leen saraxe lu bëree bëree bëree bëri di ay ñam di saraxe di saraxe ay yére di saraxe ay dàll di saraxe lekk di saraxe xaalis di saraxe lépp loo xam ne rek soo ko joxee parce que Alxuraan daf ñuy wax lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa saraxe li nga xam ne moom nga gën a di leen saraxe lu baax loo xam ne du mu nekk mbalit ci kër gi rek ngeen jël ko di ko saraxe nga xam ne da ngeen ko waroon jël sànni ko ci mbalit ba ngeen soog ko déedéet da ngeen bu ngeen bëggee muy muy gaaw a ñëw da ngeen di seet li nga xam ne moom soxla ngeen ko ngeen ngeen jox ko yàlla te bu ngeen ko bu ngeen ko saraxe nag bu ngeen ko saraxe ngir ay intérêt da ngeen ko saraxe ngir yàlla su ngeen ko saraxe ngir yàlla ngay gis si saa si rek sa situation boobu yàlla koy réglé su dee xaalis nga soxla saraxe ko ngir yàlla soo paree nga ñaan yàlla yàlla baag lay ñaan nga dimbale ma sarax bi ma sarax ni nga nga fajama sama aajo nangam fekk saraxe ko ko ngir yàlla ba pare donc loolu laa leen di wax ci wàllu sarax ñi nga xam ne yàlla may na leen kàttan ñu mën a di toj di mën a euh, euh, euh, rey nag wala ñu rey xar wala ñu rey ay gàtt def ko ay saam sarax ko mbokk yi nga xam ne gëj nañoo lekk yàpp ñu def ko bu boobaa loolu dana leen dimbale ñi nga xam ne amuñu kàttanu jënd ay saako ceeb ñi leen tane nañ jënd ay ceeb ak ay diwlin diwlin bettee leen xéwal sarax leen ko loolu day tax yàlla bettee la ay xéwal nga jënd nga xam ne yow am nga benn cent mille francs boo xam ne leer na la leer yàlla na boo ko jëlee jaay ko ceeb ak diwlin nangam ak nangam fekk benn borom kër rek nga jóoral ko ko laay laay la la man essayé naa ko ay yoon yoo xam ne waaye xam naa ne xam naa ne wér na de soo jëlee da ngay dama leen koy essayé rek conseillé conseillé leen ngeen essayé ngeen xool nga jël benn cent mille francs na koo ay millions jël benn cent mille francs yàqu na mën nga jënd benn saako ceeb benn potu ñaari kilo suukar jënd ko ba mu baax rek nga def ba mu baax rek nga borom kër nga xam ne kii nii yelloo ko nga fëgg ko rek ba mu ubbi rek nga ne ko lii day man ñaanal ma yàlla nga xool di nga gis ci waxe weer woowu ay xéwal yoo xamee da ngay xam ne ndeke di affaire yi ci gannaaw <laughs> yàlla yàlla mu ngi ci gannaaw bagage yi ndeke day ngay gis affaire bi day gaawa gaaw da ngay gis xéwal di ñëw sa yaram day firiiku nga fiix am na ñenn ñaan yoo xam ne sax joxe joxe sarax bett nit ki xéwal jox ko sax moo ko gën a gaaw donc da leen saraxe tamit da jël xaalis di ko jox seen ay yaay nga yaay dafa garab nga secret secret yu bëri nit ñu bëri ah nit ñu bëri seen gàllaaj seen yaay la xamuñu ko da leen jël xaalis ah di ko jox seen yaay même su dee cent franc par jour la nga sam amoo doole yow dal jël cent franc di ko jox sa yaay par jour su dee yow yàlla may na la nga am xaalis bu bëri del jël ay cinq cent wala ay mille franc wala ay dix mille di ko may sa yaay comme ça sa yaay chaque jour bu yeewoo rek mu mu xalaat la eh man na sama cinq mille bi ñëwagul comme man sama yaay ni may def sama yaay dafa may wax addiyee bàyyi ji la may tuddee su ma yeewoo na ko yaay mu ne ah, ma ne ko addiyee bàyyi jaa ngi nii chaque jour rek su ma yeewoo rek <laughs> xaalis boobu yëpp léegi xoolatu ko sama cinq mille francs yi bu ngi mel ni million ci moom te pourtant léegoo la ma joxoon du duun takk lu dëgër jox ko mais loolu lijjanti bu ma ko joxee sax dafay mel ni loolu amul soxla waaye waaw waaw waaw waaw waaw man sama addiyey bàyyi ji ba mu toll donc loolu dama leen koy wax da leen jël xaalis di ko jox seen ay yaay su fekkee ne yàlla dogal na ci sa yaay jiitu na nag saa yooyu yeewoo booy jullee bu nekk jàngal juróom benn xulxu wallaahu ahad nga jox ko ko addiya dafay mel ni yàlla euh, euh, maanaam su fekkee ne amoo woon sa ngërëmu waajur sax juróom benn xul walaa yooyu ngay jàng di ko jox sa waajur yàlla dina la bindal nga am ngërëmandeel ko am yàlla dina la bindal nga am tiyaabay ko am ngërëmal waajuram moo tax da leen jàng xul walaahu di ko addiyaal seen ay néew man mës naa mës naa tëdd mës naa am sama benn xarit boo xam ne ñoo bokkoon di liggéey ndeysaan ku baax la woon yàlla ko yàlla yërëm te yokk leeram benn bis ma ma ma bi bi mu gaañoo ma dem ci soxnaam ma ne ko ah man de wax dëgg yàlla diw sama xarit la woon te dañuy wax ne kóllëre ginnaaw lay féete te man de bugg yàlla wax dëgg yàlla bugguma mu dee rek man ma gëj ci kër gi wala mu bàyyi ko léegi lépp loo xam ne moom daan na la ko defal ah comme sama xarit la man pare naa engagé wu pour dimbale la ci loola lu la loo soxla rek wax ma ko lu ma ci mën danaa ko def lu ma mënul nag mënuma ko su ma ko mënee danaa ko def kóllëre gi dama bëgg continuer léegi ma toor ma toog diir bu yàgg rek dew ma ci këram ma toog diir bu dew ma këram léegi benn bi mu ne ah man de man maa ngi bëgg a sàgg sama sama kii de sama kóllëre ak sama diw diw de xaaral ma dem seeti ko bi ma demee këram seeti ko ma yëkkati cinquante mille jox ko jabar ji ba ma gis ko nga xam ne yàlla du nit ma tëdd gis ko ma a ko waa diw diw nu ngeen def noo nu ngeen def mu ne ma fi mu ne nii ma fi ma tëdd nii sama yaram yëpp suuf si lekk na ko ba mu des sama colonne vertébrale bi sama sama yax sama colonne vertébrale bi rek la suuf si bàyyi lekk ko waaye sama roxo gi yàllaa ko def ci sama yax gi ginnaaw bi fa la ko yàlla mu ne waaye fii nag ñu nekk xulwalaaw rek moo ñu fi jëriñ ku ñu jàngal xulwalaaw dañuy noos ba ba muy jeex ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne booba nag ci laa daan ko jàngal ay samay néew daan naa ko ci mais booba laa gën a fiddiliwaat xam ne kon xulwalaaw day jëriñ am na ñoo xam ne nag nit ñaa ngi leen dinaa mooy xebaadu rahmaan yi nga xam ne yàlla ma mayut leen tawféex ñooñu ñoom boo waxee dañ la niw ku dee kenn du ko ñaanal te yow tay ñu waxee seen sëriñ si da ngay dégg ñu ne rahimullah waaye nag nga mën a waxee nit rahimullah pare wubatiku ne léegi nit mënta ñaanal néewam te nit bu seen néew bu dee danañ ko jullee waaye néew bu dee kay xam nga ne moo jullee gi amatu njariñ kon su ne boo dee rek sa jëf yëpp dagg na kenn mënatu laa jëfal dal lu la fa fekk soxlawul nga koy wax radiyallaahu anhu soxlawul ngay wax rahimullah yal na ko yàlla yërëm ban ban njaar ban njariñ la am fi mu kon kon lu tax nga koy yooyu am na ñoo xam ne saytaane yi xeex lislaam ñoo leen dégisé di leen yàq seen xel te yeewuwuñ ci kon nañ góorgóorlu ci ñi ñaanal suñu néew yi gis nga ñaan yàlla moo ko wax nañ ko def yàlla moo ne nañ ko ñaan mu may ñu foofu rek la wax ji jeex jeexee woon addu hoon ni attajib lakum fa la wax ji jeexee ñaan may leen man sama soxla mooy sama mbokk bi nekk àllaaxira yàlla yërëm ko mooy sama soxla ñaan naa ko yàlla yàlla dafa ma koy may léegi ne néew jëfam dagg naa jëfam daggut yooyu yëpp c'est des c'est des débats yoo xam ne ay faux débat la moo tax nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu ñaanal suñu néew yi dee dee ko ñaanal ndax ëllëg yàlla dina la fay ci yaawe yi wëlbatiku fay la dina ko jox ju yool bi ba pare euh, euh, euh, fay la ñaan parce que am na si benn waaye boo xam ne benn xale boo xam ne yàlla daf ko maye mayoon mu bokk ci ñooñ kasu yàlla mayoon ko mu ñu gis àllaaxira benn bis muy toog benn benn benn benn benn benn borom xam-xam boo xam ne yàlla dafa nekk am fóore jàng jàng boolem kii waaye yàlla mayoon ko tawfeex na xam-xamu baatin xale bi saa yu toogee rek di wax ci waxi àllaaxira rek waaye weddi ko ci xolam weddi ko weddi ko ba benn bés rek yaayu xale bi dee bi yaayu xale bi dee rek xale bi di jooy di jooy di jooy naan woy sama yaay ñu koy dugal safara woy sama yaay ñu koy defal safara léegi waa moom jàngoon na juróom jàngoon na soixante-dix mille bisimilahi rahmaani rahim mu ne man de sama sama soixante-dix mille rahmaani rahim yi def naa ko addiye mu ñeel yaay xale bi léegi ma xool ba xam est-ce que xale bi li muy mbir àllaaxira la rek xale bi daal di ree alhamdulilahi rabbil far na fomm nañ sama yaay yóbbuguñ ko na yóbbu safara ñu ngi ne di ko yóbbu aljana waa ji ne mën a haa kon kat man amee naa ci xulwalaaw kon euh, euh, euh, kii fukki junni xulwalaaw mu mu ne mu ne man kat amaan kii la njot safara loolu kii la di di xulwalaaw tamit kii safara ah daaw mu ngoog fi laa bëgg a wax mu ngoog njot la ci safara léegi nag fi daaw woogu nag bi nga ko yaay bàyyi waa ji defee woon boppam mu jël e, e, e, addiyee ji yéere ko yaayu xale bi rek xale bi daal di rey donc mu ne moom amee na ci ngëneel ñaari ngëneel ci ci benn affaire bi mooy xamee na xale bi li muy wax dëgg la xamee ci ne ne it fukki junni xuloo laaw la ci safara kon nañuy ñaanal suñu ay néew nañuy ñaanal suñu bopp di ñaanal suñu ay wéjur di ñaanal suñu njaboot yi ñaan mooy ngànnaayu julit yonent saa salaam te dafa wax ne sax ñaan mooy jaamu yàlla ah ad ad duhaawu huwal eh, eh, ad duhaawu wal eh, yaakaar naa suma juum hadis bi noonu la ko waxee ñaan mooy mooy mooy mooy jaamu yàlla jaamu yàlla bu ñu koy wax sax ñaan la ñaan yuqu jaamu yàlla si boppam mooy ñaan yonent saa salaam mu ne ñaan mooy seen ngànnaay ah ñaan mooy seen ngànnaay adduhaawu ñaan mooy ngànnaayal jullit kon nañu ñaan jàmm yàlla nag suñ koy wax du julleeg woor ñaan la yonent saa salaam ko xadis bu wér donc nañ góorgóorlu di ñaan ñaan moom dañuy guddi nañ koy def bëccëg nañ koy def suba nañ koy def ngoon nañ koy def dañ fonk ñaan nañ fonk ñaan lépp lu jullit léegi-léegi rek maa ngi toog ak euh, ki ma jàkkaarle nii maa ngi toog moom di ko wax nag man de gëm naa ne ñaan dëgg la parce que dama am yoo xam ne dama ko gis ci yoo xam ne dama ko doon ñaan yàlla yàlla may ma ko donc loo xam ne wóor na la wóor yàlla ne amoo kattanu def ko sam amoo moyen def ko amoo xam-xamu def ko nga tàllal sa loxo di ñaan yàlla ba loolu mujj nekk sëñ bi loolu caaxaan de kon nañ góorgóorlu ci ñaan ñaan mooy ngànnaayu jullit bari na ñoo xam ne raw nañ la ci ñaan lañ la rawee ñaan ak ñaanlu de leen ñaan di ñaanlu te nangoo liggéey ñaan dañ koy dimbale ñaan dañ koy dimbale ni ñuy dimbalee ñaan mooy su la yàlla joxee jumtukaay yi nga ciy yëngatu nii saraxe di baalante ak raxas suñu xol yi gis na set fii bu ci dencal kenn dara gis nga dencal fi nit dara dalay tardeel du la jëriñ lenn ku la fa xaar nag moo cay des setat na fii set rek am na ci benn saxaaba boo xam ne yonent dafa taxaw yonent yonent taal moom dafa taxaw ne bunt bii a ñëw nit la ñu jékki-jékki rek am na benn saxaaba bu génn foofu rek gaa yi gis ko ñu ne ah kii ko xamal lañ ko benn kéemtaan lu koy mën a yóbbu aljana euh, benn saxaaba bu xam Seydina Omar la xaw ma kan ci saxaaba yi moom moo dem këram na ko damaa bëgg nga fanaan fanaan ci yow mu bàyyi ko mu fanaan këram mu xool gis ne bu day reer julli safaa witr tëdd comme ñëpp bu julee gee julli safaa witr reer tëdd comme ñëpp mu ne mu toog ñetti fan mu ne ko amen ñun dafa wax ne yow nit aljana nga te ñun xamuñ lu la su ma xëyee dama yéene si sama xol la du ma yéene benn jullit lu su su ma demee bay tëdd tamit yéene waat si sama xol la guddi gi ba bëseet du ma yéene kenn lu bon loolu moo ko tax am aljana kon nag nañ raxas suñu xol yi gànnaay yi gën a rëy ci àddina ah gàllaaj bi gën a rëy mooy yéene nit ñi jàmm mooy gaa première gàllaaj deuxième gàllaaj bi nag mooy di jëfal di di jëfal di jëflanteeg nit ñi mbaax mooy deuxième gàllaaj bi première gàllaaj mooy yéene nit ñi jàmm ku ku lu waaye mënti wax ci yow nag lu la mënti dégg ci nit jàppal ko ngànt ne ah xëy na moom xelam foofu la toll wàcc ko noonu bul xaar bul xadd bul lijjanti bul toppatoo da lay tàggal waxi nit ñi ba bàyyi leen ñuy wax yow ngay jëf rek tout temps yaay na ci kanam te nag na ngeen bàyyi képp ku ñuy wax ci moom lu bon rek moom mooy te kanam képp ku ñuy wax ci yow rek yaa ngi ci kanam ku nekkut ci kanam kenn du waxtaanee say mbir parce que ku ne ci ginnaaw kenn du la gis bay wax ci yow ki ne ci kanam la ñuy xool di wax ci moom kon nag da leen encaissé tey muñ tey wan na ay wax bañ a tontu bu ngeen bu bu ngeen ko deful rek da ngeen gis gars yi da ngeen gaaw a réussir da ngeen gis ne seen diggante yàlla day neex seen diggante jaam yàlla yi day neex loolu laa leen di digal ci at mu bees mi ci atam 2020 mi yàlla nekk atam naataange ay waay yàlla yow suñu borom yow mi nga xam ne yaay may sab jàmm lim lañ ñaan ñu ngi lay ñaan yàlla yow yàlla soxla woo xaalis yàlla soxla woo wér yaram yàlla soxla woo dëkk bu naat yàlla soxla woo ay làmp yu leer yàlla soxla woo ay tali yu tali yàlla soxla woo ay 4x4 yàlla soxla woo ay immeuble ñun ñi nga xam ne matuñ soxla nañ ko ay ñun dañu laa bëgg a gis dañu laa bëgg a xam dañoo bëgg a xegg ci yow dañoo bëgg a nekk ay jaam yu ñoo dañoo bëgg a nekk ay nit yoo xam ne dañuy lay jege dañoo bëgg a nekk ay nit yoo xam ne luñ la ñaan nga may ñu ko yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga may ñu loolu xam nañ ne soxla woo ko sa jaam ñi nga koy jox ñu ngi lay koy ñaan ci at mii ñu ngi lay ñaan yow yàlla suñu borom ñu soxla euh, dëkk bu am jàmm soxla woo ko ñun ñoo ñun nag lay ñaan suñu réew mi mu am jàmm ñun yàlla yow yow yàlla ñun xam nañ la xam nañ bu baax na yaa ñu jege jege jege ba suñu xol bi sax buum bi ko téye yaa gën jege ndax yaa ñu ko wax yaa ñu wax ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yaa ñu ko wax yaa ñu wax ne ñun yaa ñu gën a dégg suñ buumi xol yi kon nag yow xam nañ bu baax na yaa ngi dégg li ñuy wax yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci ñu réew mii di Sénégal yàlla mës a am guerre ñu ngi lay ñaan ci dëkk bii ñu nekk ci Dakar yàlla bu mës a am xay yàlla naataange wàcc ci réew mi at mii la nekk at naataange ba képp ku fi yàgg ci at ci àddina bi ci yàgg ci réew mi di nga seede na bi Sénégal sosoo ba tey naataange gi am ci at mii musuta am maa la koy ñaan yow yàlla sa jaam bu xeebu bii di Cheikh Omar Diop moo la koy ñaan maa ngi ñaan at mii yàlla nekk at moo xam ne si addina yëpp danañ seede na Sénégal naataange ji fi am ba Sénégal sosoo tey mosu fa am ñu ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal jullit ñëpp ñu ko ñaanal doomi réew mi yëpp di ñaan yàlla nag xaalis nag nay dotteeku di ñëw rek xaalis nay am xaalis nay am xaalis nay am jàmm am mucc am gëm yàlla gi yokku dëgër laay gi yokku ci wér gi yokku ci ba kenn bi aziz